بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seetaan Lamfal TV foo leen mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen baal àq ñu am mbégte nag ànd ak yéen seen émission ëttu murit ñi ngeen ko baaxoo ànd ak euh, Serigne Fallou si la dimanche bu jot tey jii nag moom mi nga xam ne nii moo doon présenté émission bi di ko dal di ko di di ci dalal mboolem ñi nga xam ne ñoo di ay invité am tey nag moo doon invité émission bi maanaam tey moom lañ fas yéene dalal ñu fas yéene waxtaane nag jàmbaar Serigne Modou Mamoun Mbacke ibnu maam Cheikh Anta Mbacke moom nekk koo xam ne nii waxtaanee ko yaatu na lool waaye ñu tànn ay tomb yu yem rek fas ko yéene ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne nii ñoo ngi ànd ak ñun ci ëttu murit kon bàyyi kat bàyyi fàllu dañ lay jox kàddu gi nga daal di nuyoo ñu door a dugg nag ci dëgg-dëggi waxtaan wi. a aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim <clears throat> mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim ñoo ngi siyaare ak ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram <clears throat> di siyaare ak ñaanal eh, jëwriñu kër Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke di Serigne Abo Mohamed. xalifatu Cheikh Mahamadul Maamun di ñaan suñu borom mu may ko fan wu gudd lool waa ndëg wér-gu-yaram ko ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko di siyaare eh, jëwriñam di eh, ki nga xam ne moom mag ci sëti Cheikh Mahamadul Maamun yi di eh, xalifatu Cheikh Mahamadou Roqaya Mbacke di sëriñ Cheikh Anta mu sëriñ Modou ak mboolem ñi mu bokkal Cheikh Mahamadul Maamun yëpp di jagleel ab ziar soxna yàkkale bintu Cheikh Mahamadul Maamun Mbacke ak mbooleem ñi nga xam ne seen way jur yu jigéen eh, sëriñ Modou Mamoun moo ko jur ñu ngi siyaare ñëpp eh, sëñ Abdoulaye. jërëjëf Baye Fallou ci nuyoo yu am solo yooyu comme noonu nga ko waxee rek suñuy nuyoo dañ koy daal di jël rek sofaat ko ci say nuyoo daal di ñaanal xalif général de Mourides Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér ba naa lim am ci liggéeyal Serigne Touba yëpp motale ko ni leen ko waxee woon rek ba tey ci jataayu ëttub Mouride. tey jii nag ñu dalal Baye Fallou Galass Sylla mi nga xam ne nii moo doon présenté émission bi naka jekk ci lam Lamfal TV ñu fas yéene waxtaanee góor yàlla di jàmbaar sëñ Modou Mamoun kon Baye Fallou góor yàlla googu nga xam ne nii mu ngi sosoo wala mu ngi bokk ci njabootuk maam Cheikh Anta Mbacké diggante maam Cheikh Anta ak Serigne Touba ku ne xam na ko suñ bëggoon a xam kan mooy sëñ Modou Mamoun lan nga ñu ciy laabire tuuti. Eh, jërëjëf eh, sëñ Ablaye xam naa kan mooy sëñ Modou Mamoun dana dana jafe. ci ñu xamle ko ci ay minit euh, rawatina ci ab émission waaye dana yomb itam ngir ñu mën cee indi ay junju yoo xamante ne bii dana tegtal moom xel ngir mu xama ci kan mooy Serigne Modou Mamoune xam nga damay wax toujours ne yàlla su nammee def ci nit ki coobareem daf koy wutal fondation euh, boo xoolee ku mel ne Moustapha sallallahu alayhi wa bi suñ borom nammee ci moom lii mu namm daf ko wutal ay askan wu baax aw askan woo xam ne daf leen di tànn ba ñoom ñëpp ñu mucc ci aw xas moo xam xas wu mën a doon noonu la waajale Moustapha ba mu àgg ci xadd naan euh, boo jëlee itam ku mel ne Serigne Touba Xaadim Rasul suñ borom daf ko waajal ci aw askan ci ndey ak baay ba mu àgg ci euh, maam maharam euh, boo demee ci wajur wàllu kër way juróom wu jigéen noonu la koy waajale ba mu àgg ci amaat ak ali ñoom ñëpp boo leen seetee ay ay ay nit yi daara lañ doonoon yoo xam ne naka jëkk taxawal lislaam ci lañ nekk waaye ay mbañu rus lañ woon yoo xam ne luy waral gàcca duñ ko def mm-hmm. waaye nag ay nit yi kóllëre lañ woon yoo xam ne duñ war duñ wuruj duñ def jenn jëf ju sew loolu moom la ñuy waajale nitu yàlla ba bu ëllëgi sibiree kenn nit du ko mën a xas ci benn ci ci benn jikko wala benn fànn sëriñ Mourou Mamoun noonu la ko euh, sëriñ tubaab waajale wala boog noonu la ko sun borom waajale ci tànnal ko aw askan ci ndey ak ci baay te damay wax toujours ne nit ki kër baayam mën naa nekk tànneef waaye mu am tuuti lu des ci kër ndeyam kër ndeyam it mën nañoo am mu am tuuti lu des ci kër baayam ci ab juddu waaye sëñ Modou Mamoun li ko suñ boroom dimbalee mooy kër ndeyam mooy kër baayam kon nu kër baayam di mel rek ni la kër ndeyam di mel loolu mooy tax nag la ciy juddoo wolof de faral di wax ne lu juddoo cim tàgg bu naa naawut jaaxale boppam. jaaxali bokkam waaw li juddoo cim tàgg su fekkente ne bii am picc lay doon moo xam picc mu mën a doon bu dee picc mu mën a doon rek picc mooma lay doon ci ndey ak ci baay sëñ Mourou Mamoun ndeyam mooy baayam baayam mooy ndeyam ci gàttal mooy mooy mooy doomi maam Cheikh mooy ab taawam te dana feeñ ci moom sëñ Mourou Mamoun yàlla am na yoo xam ne bu ko naree ci nit ki rek dana ko feeñal ci ab juddóom ci aw bokk askan wi mu koy wutal dana ko feeñal ci environnement bi muy juddoo dana ko feeñal ci tur wu muy am dana ko feeñal itam ci waxtu wi muy juddoo ak événement yi cay am yooyu yëpp boo ko xoolee dana feeñ ci sëñ Modou sëñ Modou Mamoun maam Cheikh jur mooy taw maam Cheikh Anta boo ne kan mooy maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta Sidil Muxtaar Kunti la tudd da doomi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ak soxna Anta Ndiaye Mbàkke sëñ Mbàkke Mor Anta Sali di doomi maam Balla Aysa Habibullah di caatu maam Maharam soxna Anta Ndiaye Mbàkke mi ko di doomi Ibrahima Awañang Ibrahima Awañang di ñaareelu doom bu góor bu maam Maharam kon gis nga ne maam Cheikh Anta moom it ndeyam mooy baayam ci fondation ndeyam mooy baayam ndax Ibrahima Awañang ak maam Balla Aysa ñoo bokk benn baay kon soxna Anta Ndiaye Mbàkke ak sëñ Mor Anta Sali seen ñaari baay yee bokk baay kon ñoo bokk baay boo ñëwaatee ci sëñ Moodu Maamun kon kooku moo ko jur sëñ Moodu Maamun soo ci ñëwaatee eh, da nga naan doomi soxna Faati Buree soxna Faati Mbàkke soxna Faati Mbàkke Ibra Ibra eh, Ibra Kane ko jur Ibrahima Awaña nga ko jur Ibrahima Awaña maam Maharam ko jur kon gis nga ba tey moom ndayam mooy baayam waaye soxna Faati Mbàkke soxna Faati Balla Soxraa ko jur soxna Faati Balla Soxraa maam Balla Aysa ko jur maam Balla Aysa maam Maharam ko jur kon moom. baayam ëppaliwu ko ci maam xaram benn benn ndax baayam daa dellu ci maam xaram ñaari yoon mu dellu ci maam xaram ñaari yoon kon lu baayam dellu ci maam xaram dellu na ko ci ba noppi delluwaat ci delluwaayu boppam te boo delluwaatee ci soxna jaaratullahi Mariama Bousso mi meññ Seexuna Ahmadul Xadim soxna astawaaloo ko jur soxna astawaala kan moo ko jur Ahmadu soxna Bousso Ahmadu soxna Bousso maam Maharama ko jur nga gis ne fan kon foofu maam Seexanta sax boo doon delluwaat ci ak bokk day doon nijaay ci sëñ Tuubaa ndax moo soxna jaara ñoo bokk baay kon day doon nijaay ci sëñ Tuubaa ba noppi nag di doomi bàjjanam ba noppi di doomi nijaayam ndax baayam nijaayam moo tax ma ne maam Cheikh Anta lu nit di bokkee ak sëñ Tuubaa rek bokk na kooku mooy sëñ Mudu Maamun ci wàllu juddu mu ganee àdduna it ci dëkk bi ñuy wax euh, bokk na ci ñi njëkk a ganee àdduna ci Touba euh, mook Cheikh Mahamadou Lamine ak soxna Marema Kunta moom Cheikh euh, soxna Awa sëñ Mudu Maamun weenu yaayam yaayam mooy ki jëkk a faatoo Touba maanaam mën nañ ne mooy murit bi jëkk faatoo Touba yaayam eh, bi mu faatoo nga xam ne bis bi sëñ Mourou Mamoun ganee àdduna rek la génn àdduna booba ay Touba amaguti armel ab sanc bu yes la sëñ Touba des na nañ ko jël yóbbu ko ci sëñ Bousso bi ci Mbàkke ñu indi ko Mbàkke bañ fa toogee ab diir la fa ku ñu wax Abdouloum mooy góor ga fa njëkk faatoo moom itam faatoo ci gorob Touba ba sëñ Touba ne nañ mu ko yóbbul Daaru Salaam bi soxna Aminta Lo wàccee la sëñ Touba ne lañ ma mayoon Daaru Salaam may ma ko mbusoo ma may nañ ma ko ci Touba nañ ma ko dencal ci arme fi fi daal di rëdd armeel kon ñoo ñoo njëkk a faatoo ci Touba yaayam nag moom sëñ Mourou Mamoun moo ci njëkk faatoo kër gii sëñ Touba tëdd muy jumaa ji kërug jumaa ji muy kërug Touba foofu la sëñ Mourou Mamoun gane àdduna moom Cheikh mu Lamine Bara euh, bi yàlla dogalee mu mat a dal jàng ndax xam nga sëñ bi yàggut tuuti waaye sëñ bi ci jamonoy sëñ bi la dal jàng laata sëñ bi dem ci géej gi sëñ bi soobu yoonu géej gi ñu daal di koy fab jox ko sëñ Afi baayam mi bokk ak maam Cheikh ndey ak baay jaar na ci loxoy sëñ Daam Abdourahman Lo waaye ci diggante boobu ci la jàng alxuraanul karim te teel koo mokkal lool moom sëñ Mourou Mamoun ba noppi suñ borom def ko muy ku neex baat baatub alxuraan bu ko masaa di jàng dañuy wax ne kum dendal du too wax faw nga di ko déglu ndax neex baatug alxuraan gi ak mokkal gi alxuraan te jéggi dayoo. ba sëñ tubaa jóge ci géej gi ñëw Daaru Salaam ci atum 1903 ci la ñëwee ci sëñ Touba sëñ sëñ gaawaan présenté ko sëñ tubaa na ko aliwam àgg na bind na ab kaamil kon yaakaar naa ne ci wàllu gàttal kooku mooy Cheikh Mamadou Mamoun. jërëjëf euh, sëñ Fallou Galass la yaakaar naa ne bu ñu déggee kàddu yi mën nañoo wax ne sëñ Modou Mamoun ni suñ borom jaarale wala fi suñ borom jaarale mbooleem góor yàlla yi tàmbalee ko ci yonent bi. Euh, ci Serigne Touba ak mbooleem góor yàlla yi rek tànnal leen askan wu baax wu ràññeeku wu am diine ak lislaam mën nañ ne sëñ Modou Mamoun bokk na ci waaye gis na ni itam dëkk bu tedd bi nga xam ne nii mooy dëkku Serigne Touba Cheikhul Khadim Euh, kii na ci lool xejj na ci lool ci ab feeñ jamonoom euh, digganteeg waajuram bi nga xam ne itam moo fi njëkk a euh, nelawe ni nga ko waxee bokk ci ñi nga xam ne itam ci njëkk njëkk feeñ jamono lañ fii ci jumaa ji fi nga xam ne moo nekkoon kërug Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba kon mën na ne nit la ko xam ne ni daal lépp lu ñuy xool ci góor yàlla suñ borom tànnal na ko ko am njàngam itam wax nga ko ginnaaw bi mu jaxasoo ko ñenn ci njabootuk sëriñ Touba ak magam ñi mag yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne ni ñoo doon taxaw njaboot gi man na ne kon lépp lu lu ñuy dajale ci góor yàlla amoon na ci moom kon dafa mel ni wax nga léegi ak mbokk diggante maam Cheikh Anta ak Serigne tubaa Cheikhul Khadim kon bu ñu bëggoon laaj sëñ Modou Mamoun lan la bokk ak sëriñ tubaa ak diir bi mu nekk ak sëñ tubaa ban taxawaay la fa amoon lan nga ñuy leeral ci diggante boobu. waaw jërëjëf sëñ Ablaye <coughs> xam naa émission bi dañ koy tënk ndax sëñ Modou Mamoun dafa dafa dafa riis boo côté boo dugg rek boo ci xuusee dana dana ëpp émission moo tax bu ci nekk dañ cey cof dara eh, wax naa leen ne sëñ Touba bi mu jógee ci géej gi 1903 janvier 1903 la ñëw Daaru Salaam bi mu ñëwee Daaru Salaam it ku ne xam na ne ci ñaar fukki fan ci kori wala eh, mam Cheikh Anta defal ko fa teraanga joo xam ne kenn mu a gis teraanga ju toll noonu. Euh, bokk ci ay jagle nga xam ne ay ay ay li li sëñ daan wax ci maam Cheikh naan su ko jubee mu naan ko ma tawfiixiya illa billah muy loolu mooy tawfeexi sunu borom ji nga xam ne moom la yàlla def ci Cheikh Sidi Muxtaar maam Cheikh Anta muy dëkk bi sëñ Tuubaa jëkkaam mu rafaatale ko mbooloo mi sëñ Tuubaa jëkkaam rafaatale ko bi sëñ Tuubaa jógee ci géej gi ñëwaat ci ab dëkkam bi sëñ Tuubaa demee ci géej giit moom képp mu fekk ko fa. yéene ji sëñ tubaa amoon it mu defal ko ko muy demal ko Màkka dafa bari yoo xam ne buñ boo ca duggee day day lay labal ci fi nga bëgg a jëm waaye dama lay wutal rek sëñ Modou Mamoun fondation nekk ko suñu borom waajalee ci lépp lu baax da koo fekk ci kanamam ba noppi nag mu góorgóorlu sëñ Modou Mamoun bi sëñ Tuubaa ñëwee xam nga dafa yàggut sëñ Tuubaa weer la def Daaru Salaam ñaar fukki fan ci kori la fa ñëw ba ci ñaar fukki fan ca digg wa mu soog faa jóge dem Daaru Manaan ginnaaw bu mu jëmee Daaru Xalimul Xabir ba dellusiwaat ci gàttal daaru manaan bi sëñ Tuubaa li tax mu def daaru salaam weer bi mu ñëwee dafa fekk ne daaru manaan dafa lakk cam ko doon liggéeyloo waat maam Thierno Ibrahim borom daarul moxti maam Thierno ne ca liggéey ba ba liggéey ba war a toll ci nopp mu ñuy jënd ay lalak ay def def yi faan loolu sax moo indi sababu dem ci gànnaar dem gànnaar gi bi liggéey bi àggee nag la ko sëñ Tuubaa ñëw sanc bam ko sancee nag yàggu fa dafa daa dem gànnaar bi mu demee gànnaar nag la sëñ Tuubaa waxoon sart bii ne képp koo xam ne damay fekk gànnaar na nekk ba ma woo ko ku coobare wut ñi may woo kuñ ci yabal kuy ñëw na doon gone na man liggéeyub góor te na man alxuraan na man alxuraan man liggéeyub góor te na doon gone ci la sëñ gaawaan nag jëllu sëñ Muudu Maamun ñu yóbbu ko gànnaar bi ñu agsee sëñ Tuubaa li mu ko njëkk laaj daf ko ne moom du noo defee kaamilu sun borom bi waxi yàlla ji noo defee waxi yàlla ji mu ne ko am na ci lu man de sëñ sëñ Tuubaa ne ko baax na booba tuutaayub sëñ Mudu Maamun la sëñ Tuubaa jàpp ci defe ne sax maam ci daal jànk yooyu lay war a toll <clears throat> bi yàlla dogalee waxtu wi jot sëñ Tuubaa daf ko woolu mu ñëw mu ne ko Mudu bisimilah sëñ Mudu Maamun tàmbalee baqara bi ko sëñ Tuubaa dégloo kaamil bi ba mu tare ko ci waxtu ya neex sëriñ bi sëñ Tuubaa daf ko ne Mudu day waxuma la man gi waaye baat bu neex bi tax na ni nga koy jànge digal naa la waxtu wu ne bu julli timis bu ñu jullee sëlmatee timis fu ma nekkati na nga jàng ñaar fukki isib te di ko jàng ci ko ma di ko dégg ngir neexiitu kàddug sëñ Mourou Mamoun gi ci la sëñ Mourou Mamoun saxale nag sak timis buñ ko jullee ci gànnaar xayma bu sëñ Touba mën a ne sëñ Touba bu masaa sëñ Mourou Mamoun bu masaa di jàng day ràbbale ay baaraami loxoom nii da koy ràbbale nii teg ko ci ginnaaw boppam fa bopp bi teg ci. tel togg ay tànka fa benn tànku ndijoor bi teg ko ci tànku càmmoñ bi su ko defee nag day daal tàmbali jàng rek bu sëñ Tuubaa masaa dégg kaddu sëñ Mudu Maamun li ci alxuraan dootuñu ko dégg mu def dara dañoo dañ daan wax ne sëñ Mudu Maamun làmmiñ yu ci alxuraan comme làmmiñ ñu yonent yàlla Yuusuf am bis nag daf koy def di jàng nag alxuraan ji dugg sëriñ bi sëriñ bi jékki-jékki génn ndab dukk dukk dukk yor ndab teg ci am ndox raxasu teg ci potum naanukaay. daal di xool sëñ Mourou Mamoun fa mu ne mu tegal ko ndab li daal di dox digganteem ak mbooloo mi nga xam ne sëñ Mourou Mamoun daa nekk nii sëñ Touba ne ci digg bi mbooloo ma nekk ne nga xam ne kenn mënut a jóge ci mbooloo mi dem fekk sëñ Mourou Mamoun sëñ Touba toog ci diggante bi sëñ Mourou Mamoun àggale jukkib alxuraanam mu àgg sëñ Touba ne ko bisimilah mu ubbi ndab la barkeelu kenn xamut lu ca ne bu noppi sëñ Touba ubaat ndab la daal di koy jëlaatal bopp mu dugg ci biir daa di wóolu sëñ Mourou Mamoun mu fekk ko ci biir ñu ba ci suba sa bi waxtu wi nga xam ne ci la sëñ Tuubaa génne woon ndab li sëñ a génnaat jàng alxuraanam mu génnaat jàng jukkib alxuraanam ñaar fukki isibam ba mu àgg sëñ Tuubaa génn daan na bisimilah mbooloo ma daje si ne xanaa démb de fi ma jaar ak Mudu jaaxal na leen. waaw ah, waaw Mbàkke Mudu de daa mel ne mu ne nag de ku ko yeew nga xam ne du wëtt du fori da nga koo war di yefal daan na sëñ Mudu Maamun de kon loolu mooy tegtale ne kon. nu mel rek sëñ Tuubaa la waaw mudu maa man sama beefa la mooy tegtale ne kon nu mel sëñ Tuubaa la loolu jaar na ci sëñ Tuubaa ci gànnaar ci gànnaar ba tey itam bokk na ci xayma yu ko sëñ Tuubaa daan dénk xayma boo xam ne dañ ciy def ay baraayak ay seelak ay karawa arawak mboolem xeet yi ñu jëfandikoo te nit ñi daan ko jëlee Sénégal di ko andil sëñ Tuubaa gànnaar maanaam bu doon ci jamono yi dem naan magasin bi mu ne sëñ Mourou na yoroon doom ba muy caabi ja waaye li xiif bii mitti mitti ci gànnaar nga xam ne sëñ Mourou Mamouna wax na ne xiif bi daana mitti ci gànnaar ba àgg ci banti génneel yi nga xam ne moom la firdo yi daan rabbe basang yi dañ ko daan takk ci seen biir yi fecc lee ko ay morso ngir mu mën leen a téye ba mën a liggéey ndax xiif bu metti waaye nee na tëxut mu mas a xam lu ne ci xayma ba wala mu mas caa jël aw fepp lekk ko ci la sëñ Tuubaa nag ñëwee woon nag di xool la xayma ba ci xayma boobu li ci nekk lépp de sëñ Tuubaa naar la koy jox de mm-hmm. waaye du ko jox njabootam gi waxtu ne ñi ngi liggéey di jàng alquran di def lañ war a def waaye li xiiwal yi fi nekk yooyu zaahir naar yi la ko sëñ Tuubaa di jox ñoom da leen di tarbiya bis nag sëñ Tuubaa di ñëw xool bagage yooyu gis na sëñ Moodu Maamun laalu ci dara mu ne ko Moodu xam nga li des ci denc bi mu ne ko xaw ma fi dencoon de sëñ Tuubaa ko fépp cere yi de ñoo ma xamal ne bëtu Moodu Maamun mu sa tege ci ñun daal di daal di bind ci kayit bi daal ne na nga koy wut tuddee Mouhamadul Mamoun fekk na lu ko jiitu mut seex lañ koy wooye Moodu Seex Moodu moom seexanta waaye turu Mouhamadul Mamoun gànnaar la ko jëlee ci kaddu sëñ Tuubaa googu nga xam ne kon ni yonent bi meloon ci njalbeen ñu koy wax Mouhamadul Amin doon ko ñu wóolu ko sëñ Moodu Mamoun amaanam boobu moo ko dal ci gànnaar ba sëñ wax sëñ Tuubaa tudde ko Mouhamadul Mamoun kon loolu bokk na ci ay taxawaayam ci digganteem ak sëriñ Tuubaa bokk na ci lim ci daan def li sëñ Tuubaa daan jëfandikoo sëñ Moodu Mamoun daf ko daan togg sëñ Modou Mamoun kii si ñele woon ci biir wanagu sëñ Modou Mamoun sëñ Touba li sëñ Touba di jëfandikool boppam sëñ Modou Mamoun bokk na ci ñu ko daan togg daana ko féetewoo di ko bës moo ko ñu wax Baye Serigne saar moom sëñ Ibrahima Sarr Njaañ Jasaaka wax nañu sax ñoom ñaar seenu tërbiya sëñ Touba da leen a boole woon ñu tax koo xaritoo ba doon benn ba ay doomi nijaay lañ doonoon ñi ngi nettali ne ci ci Ceyeen Jolof bi ñu jógee gànnaar ba dem Ceyeen Jolof sëñ Tuubaa da daan ànd ak moom sëñ Mudu Maamun nee na am na benn bis boo xam ne sëñ Tuubaa da leen daa ànd ak ñoom ba ci digg àll bi mu wàcc leen fa rëdd aw rëdd wërale leen ko ne leen bu leen génn rëdd wi rëdd gi nag li ko wër ay gargamboose la nee na bu sëñ demee bala ñu ko gisaat fajara jot waaye nee na fi ñu bàyyi bukki yaa ngi mar suñu yaram wi maag bàyyi sëriñ Saar waaye neen mënuñ ñoo matt dañ ñoo mar yaram wi yuut ko ba mu tooy xib waaye benn bukki mënuñ cee matt ndax génnuñu rëdd wi nee na ci fajar si bi sëñ Tuubaa dikkee daal ne nañ leen dem moo tax sax si bàyyi Serigne Sarr daana wax ne bu ko bëggaa tooñ daan ko borom garga mboose yi waaw loolu kon ci daara it Ceyeen Jolof jaar nañ foofu kon nga gis ne sëñ Mourou Mamoun tërbiye woon ak Ceyeen Jolof gànnaar tërbiye woon a Ceyeen Jolof la fa mag ñëpp daj mu daj ko fa bi sëñ Touba jóge Ceyeen Jolof nee na gaal gi nga xam ne moom la ma sëñ tubaa yan yan ko bàyyi Serigne Sarr daf ne bu laalee suuf da ngeen a àgg njëriñ su laalee suuf da ngeen a njëriñ nga xam ne Ceyeen Jolof lañ doxee ba njëriñ bi nu ñëwee njaareem it taxut sëñ Tuubaa bàyyi ko moom sañ sëñ Mourou Mamoun sëñ Tuubaa daf ko téye dëkkoog moom ci biir wanag wi bi yàlla dogalee sëñ Tuubaa jënd baa rek soxna Fat ja lañ fa njëkk a defal kër sëñ Tuubaa sëñ Mourou Mamoun mu kàllaf nag toll ci sëñ Tuubaa war koo sampal kër da koo rëddal kër ci biir kër gu mag mu nekk ci penkoom mu ne ko dooma mën a sori ndax bu ma la soxlaa nga daw ñëw fa la ko man mii kër googa doon naa fa jàngee mi ngi sës rek ci penc mi sëñ sëñ tubaa fi la ko téye mu continuer ci lam nekkoon njàngum alxuraan ma ak di toggal sëriñ bi ak di ko bës kon kooku mu sa tàggoog sëñ bi ci genn fànn ba atum 1917 ci la sëñ tubaa woolu maam Cheikh Anta mu ñëw mu ne ko Cheikh de damaa bëgg Daaru Salaam ñu dem sancaat ko te gentaat damaa bëgg ñu yeesalewaat sancub Daaru Salaam sëñ gaawaan na ko waaw waaw yow de am nga doom joo xam ne day man na ko de mu ne ko koomu mu ne ko mu Mouhamadul Mamoun mu ne ko nañ ma ko wool ñu daal di woo sëñ Mudu Mamoun ci biir kees gi mu ñëw sëñ Tuubaa ne ko Mouhamad damaa bëgg ndax mën ngaa sancaat Daaru Salaam boo ko sancaatee duutu gent sëñ Mudu Mamoun nag buñ ma ko digalee de ma man ko mu ne ko danañ la ko boole digal la ko ak dimbale la ca daal ne Cheikh demal nga waajal ko tam ñëw ma wax ko bis. sëñ Modou Mamoun daal di ànd ak maam dem kër gu njaareem euh, njaareem ci kër gu mag gi euh, fi daan wax Paris foofu euh, la sëñ gaawaan woo mbooloo mi àndoon ak moom ñëpp daje waaye nag booba njaareem daa mel ne àjjana nag neexut a génn maam Cheikh ngi fi sëñ Touba ngi fi maam Cheikh Rafaala nga fee njaareem xumb lool neex lool Daaru Salaam di ab àll di ak tàkk goo xam ne dara nekku fi sëñ gaawaan daal di wax ne. Modou Mamoun mii de laa bëgg mu dem Daaru Salaam sancaat ko ci ndigalul sëñ Tuubaa ana mbooloo mi kan moo ko ci mën a jàppale ji kan moo ko ci mën a wéttale ji ba noppi wax ko na teg nee na bi mu ne tekk ba mu yàgg góor gu ñuy wax Amar ngoom di doomi Baye Modou Ngom doonoon Baye moo njëkk a yor barab bi Baye Amar Ngom moom moo ne man de man naa ko sëñ Gaawaan daal ne Modou Mamoun laa bëgg mu dem sañcaati Daaru Salaam ci ndigalul sëñ Tuubaa te du gentati ku ko mën a wéttali ci mbooloo mi góor gu ñu wax Ablaye Fall ne man de man naa ko sëñ nga ànd teg waxaat ko ay yoon kenn waxaatut mu ne kon Mamadou waajal te ànd ak Ablaye Fall ak Amar Ngom ñu daal di ànd sëñ Mourou Mamoun daal di ñëw sancaat Daaru Salaam ci atum 1917 bi muy ñëw ci sanc bi nag mu àndaale soxna Roqaya Touré ndax sa njëlbeenu sanc bi sax andiwul soxna Roqaya waaye bi mu sànci ba noppi sëñ nga ànd daf ko ne Mamadou jàppal na dangay toxu jëlal Roqaya te yóbbu ko fa bàyyi soxna Astou Ndiarème ndax bu la sëñ tubaa soxlaa boo wootee boo ñëwee ci kër gi fekk ko fe boo nee ca tool yi boo demee fekk fa kenn mu bàyyi indi soxna Roqay Touré Daaru Salaam bàyyi soxna Astou Ndiarème 1917 waaye sëñ tubaa bàyyiwu ko fi dafay toog ab diir rek sëñ ko nga ne kon daa mujjoon bàyyi ci dëkk bi soxna Roqay Touré ba wax nañ ne sax am na jamono joo xam ne dëkk bi bi koy def village eh, dañoo wax ne nañ bind village de yi Touré ndax booba eh, siiw na fi loolu daal. ndax soxna Roqe yi itam suñu borom la ko defoon muy jàmbaar wutoon ay ndi jigéen ñi daan wut ay mbandi suub di wut ay ëcckat nga xam ne wattin da ko daan bay di ëcc di wut ay ràbbkati sir loolu daanaka créer ab industriel. waaw ci ci jamono jooja sëñ Tuubaa waat ko mu nekk foofu waaye sëñ Mourou Mamoun booba yor na fi daara ju mag ñoo xam ne day wax dongo yi mm, ku ñuy wax sëriñ Modou Ñang ca la bokkoon Baye Ñang ku ñuy wax sëñ Matar Sarr la bokkoon. ku ñuy wax sëñ Moodu Maamun Jaxate mm, ñu di wax Baye Moodu Jaxate ca la bokkoon ak ñeneen ak ñeneen sëñ Touba euh, sëñ Moodu Maamun da leen daan wax ne day leen taxan ak seen jëwriñ ju ne wax Mbay Saar boobu jëwriñu daara ji Mbay Saar la tudd dañ daan taxan mattum jalambaan mu rafet di ko andil sëñ Touba njaareem nga xam ne bu matt manqué sëñ Touba danaan nañ nekk ba njabootu Moodu Maamun gi ñëw bu ñu andee danaan andaale matt. coocee nag la ku ñuy wax mut ñang ràññi ko woon lool ba mujj sax sëñ Tuubaa da ko jëndal mbaam daan na ñëpp toog te mut ñang di indi nga xam ne kon dañ daan taxane di ci di barkeelu ci jeexitali matt yi maam Cheikh Rahima Fall doon goral sëñ Tuubaa ci Daaru Salaam moom lañ doon gor di ko yóbbu njaarim foofu la nekk euh, àggale fa ab liggéeyam ba sëñ Tuubaa wàcce ab liggéey 1927 digganteem ak sëriñ Tuubaa sëñ Ablaye. macha allah Baye Fallou xam naa buñ ko toppoon dana yaatu doy na sëkk émission. mel ni dégg nañ ci ne euh, sëñ Modou Mamoun ku ko woon ak Serigne Touba Cheikhul Khadim la takkoo goog nag taxawoon na Serigne bi defar ko defar goo xam ne nii euh, mbooleem jëflante yi nga xam ne nii wax nga ko mu ko doon jëf wala mu ko doon jëfal Serigne Touba jëf jëloo jëf joo xam ne nii euh, képp ku ko gis wala nga dégg ko rek jëfi la koo xam ne nii la dañ koo defar defar goo xam ne nii mucc na ayib loolu itam defar googu mën nañ cee jël li nga xam ne nii itam lu am solo la muy wóolu. Euh, maanaam kóolute goo xam ne nii Serigne Touba Cheikhul Khadim wóolu woon na ko ko kon nag bu euh, buñ ko toppee dina yaatu macha allah ni nga ko waxee xam naa beneen laaj bi ñu ciy toftal ginnaaw euh, bi sëñ Modou Mamoun taqoo ak Serigne Touba Cheikhul Khadim mu defar ko ba yàlla dogal suñu suñ borom dogal ki nga xam ne moo di Cheikhul Khadim ñibbi àjjana sëñ Modou Mamoun dafa dellu ci keppaaruk waajuram maam Cheikh Anta ñu bëgg na xam naka la doon dundee ak maam Anta ginnaaw bi mu jógee ci yoxoy Serigne Touba Cheikhul Khadim waaw kay bisimilah rahmaani rahiim jërëjëf sëñ Ablaye nga may ma tuuti rek ma indi ñaari baat yu am solo benn bi ci gànnaar la benn bi ci njaareem la gànnaar am na benn bi sëñ Tuubaa Cheikh Sidiya daf faa ñëw Cheikh Sidiya Baba ba mu ñëwee mu indi woolu sëñ Mourou Mamoun bi mu ñëwee sëñ Tuubaa ne ko nuyoo la kii mu nuyoo Cheikh Sidiya mu ne ko kii kum doon mu ne ko kii do mooy taawub Cheikh mu ne ko lu muy wut fii mu ne ko dama ko denc si gànnaar ngir bëgg mu raw. nga ko denc si gànnaar ngir bëgg mu raw ndax booba ni sëñ Muudu Maamun man mel ci alxuraan mel ko ci kala kalimatul xarabiya dégg gi nga xam ne buy wax làmmiñu day mel ne làmmiñu naar maanaam ak ni sëñ gaawaan toll woon ci àdduna lu yéem Seex Sidiya la mun ne ko kii lu mu fi wut mu ne ko dama ko denc si fii ngir bëgg mu raw daal ne Seex Sidiya gone du të day raw gone day raw beneen bi ci gànnaar eh, beneen bi ci njaareem sëñ Touba dafa am benn bis mu mu woolu sëñ Moudou Mamoun sëñ Moudou Mamoun bari ak jagle la ci sëñ moo tax daana wax ne sëñ Touba ci ku xëy ñëwuma ci ku gont loolu la ko daal daana wax ñëwuma ci ku xëy ñëwuma ci ku gont benn bis sëñ da ko woolu mu ñëw mu yëkkati ñaar fukki dërëm jox ko li ma lay wax sëñ Moudou Roqe ma ko nettali nee na ma sëñ Moudou Mamoun a ko nettali nee na da koo jox ñaar fukki dërëm fekk booba sëñ Moudou da koy digal ak togg mu ko Mamadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko demal toggal ma ci ndab sëñ Mudu Maamu nee na mu fob ñaar fukk yi ko sëñ Tubaa jox mu dem jënd ci ay këyit ak i daa ak i xalima wut ñaar fukki boppam togg ci ndab ku teel a bari barke la. bi mu toggee ndab li ba noppi yët ko sëñ Tubaa ba noppi yëpp boole wala ci paketu këyit baag daagaag yi ci aju sëñ Tubaa ne ko seex foo jëlee lii mu ne ko leemooy ñaar fukki ya ma joxoon mu ne ko yii nag mu ne ko sama ñaar fukki boppa mu ne ko seex ndab dafa bari njariñ te ma bëggal la ko. daal di am na fu góor yàlla yee nekk foo xam ne ak jaamu duutu fa àggali nit ay ndaba fay tax a dabe. Mm-hmm. waaw ndab daa bëgg bari njëriñ te ma bëggal la ko kon gis nga togg sëñ Modou Mamoun mi ngi ko jëlee ci ndigalul sëñ Touba. Mm-hmm. bu ñu ñëwee nag ci sa eh, laajub eh, bi nga ma laaj léegi nii mooy ginnaaw bu sëñ Touba wàccee moom bi sëñ Touba wàccee la soo ko takk laxasaay 1927. na nag lu ma jëlee woon ci sëñ Touba rek nga xam ne moom dañ ma faa yóbboon pour ma jot ko la maam seexante yoral boppam jëlee ko ci sëñ Touba fas naa ci yéene jot sama wàll ci la takk laxasaay nag nekk ci ron maam Cheikh te mos a dëkkoog moom ci dara fii ku sëñ Touba dëloon muy Daaru Salaam bi sëñ tubaa demee 1927 rek fi la ñëw 1927 la daal di ñëw Daaru Salaam fekk booba nag kërëma ak njabootam a ngi fi ndax nee naa la 17 la ko sañcaat ba 27 kon am na fukki at njabootam bari ganee fi àdduna kon ab dëkk ma doon na dëkk daaraa ngi fi yu ñu yu ñu tarbiyaa nit këram a ngi fi ak njabootam ngi fi kon bi sëñ Tuubaa demee moom daa daal dellusiwaat Daaru Salaam maam Seex booba gaawaan la wuti càqami ñaaxeen dëkk yooyu la doon bàyyi waaye Daaru Salaam moom da ko jëkk da ko bàyyi woon ak sëñ Mudu Maamun sëñ Mudu Maamun ne fi nag lépp lum liggéey boole koog liggéeyub dongo yi ni seex sii def lay def dajale lam liggéey fekk borom tubaa borom gaawaan gaawaan jox ko addiyam takk ak laxasaayam di ko liggéeyal liggéey bu wóor ba ni sëñ Mourou Moustapha woote waate liggéeyu jumaa ji mu wuute ca borom gaawaan takk ak laxasaay moo tax nga dégg sëñ Moussa Ka naan alhamdulilahi salaam ndegam borom daaru salaam jébbal na Moustapha al kalaam ala binaa il jaamihi borom daaru salaam moom maam sëñ Mourou maam rek lañ ko mas di wooye ndax moo dëkkoon daaru salaam. boo déggee ñu borom Daaru Salaam ak gaawaan nag xamal ne wax nañ maam Cheikh ndax moo boole sëñ Modou Mamoun nag lim moom lépp moom waaw mu nekk ci loolu moom sëñ Modou Mamoun di liggéeyal borom gaawaan liggéey bu rëy boole kook jàpp di participer ci jumaa ji ni ko sëñ mu saa daan wootee nga xamante ne bii eh, dañ ko daan sas sasu borom gaawaan ci moom lañ ko daan jaarale mu ànd ak jëwriñ yi dem di wuji carrière ak fa ca aju fépp. ba ni maam Cheikh Anta wàcce ab liggéey kon lam def ci sëñ Touba def na ko ci borom gaawaan mooy tarbiya wu na sëñ Touba waaye tarbiya wu na it maam Cheikh bokk na ci itam ci tarbiya gi bi bi yàlla dogalee ñu exile maam Cheikh Anta 1930 yóbbu ko Sigu may bañ mu gudd. Mhm. nekk na fa ba 34 diir boobu mu dem. sëñ Modou na ko wutu ginnaawam ci dëkk bi 1934 nag bi sëñ Modou Gaawaan di ñibbisi biñ ko wàccee dafa ñëw Daaru Salaam 1934 bi mu ñëwee Daaru Salaam ci gàttal ginnaaw émission bi sëñ Modou na ko moom dafa wax sëñ Modou na ko bëgg nga surga sëñ Modou Mamoune ko ah waaw bëgg naa ab surga de waaye bëgguma bu mel ne mbayka de ba yéeri jaxate mu ne ko man nag surga laa boo xam ne duma lekk lu dul cere lay ju am yàpp te duma lekk yàpp wu naan waaw loolu la ko wax de na ko ndoxum ndoxum gànnaar it lay naan ndoxum butéel lay naan du kenn du ma ca teen ba loolu boobu mag ñi ay daam saan lañ daan yónnee gànnaar di ko duy moo tax maanaam ndoxum butéel la daan naan fa néegi gaawaan. ndox mooy perval yeeg yu demee noonu mu ngoog. waaw mën nañ ci tudd aynu comme sax du ma tudd ma ma aynu lañ ciy tudd. comme mooy suñu yëf. <laughs> waaw dégg nga mu ne ko loolu laay naan ne ko bëccëg bu jot itam da ma tegal ceeb ceebu ya ceebu ndawal. sëñ gaa joxal ko ay sartam. na ko du ma fanaan ci néeg boo xam ne almet mën na koo lakk jeexal te aw seng day metti sama yaram xam nga sart bu rëy la ko jox. sëñ ma Mamoune na ko lépp luy tax nga dëkk Daaru Salaam de mën naa ko ci la sëñ Modou Mamoune demee gisee ki yoroon liggéeyub jumaa ji ci jamonoy sëñ Modou Moustapha <coughs> tubaab bi andi ko Daaru Salaam defal ko benn plan na ko damaa bëgg ñetti néeg yoo ànd ak ñaari werandaay ak ñaari pantre ci seen kanam. ak benn néeg bi day ànd ak euh, salle de bain boo xam ne day am baignoire am lavabo am yëpp ca jamono jooja ak piscine ak piscine dégg nga bu baax. ak piscine nga xam ne fii ne gaa yi ci lañ toll. tubaab boobu wax ceeg sëñ Muudu Maamun bañ d'accord ci fukki junni ak ñaar ci bâtiment bi. ci jamono jooja francs ci jamono jooja. mu ne ko bu ci piscine bi àndee piscine bi mooy citerne bi ne ci ginnaaw. néeg borom gaawaan bi sëñ Mourou Mamoun dafee dafa gasoon benn kaaw buy def ndox ndax nee na sëñ gaawaan ñemewut tàngaay léegi na bi bu dee def ndox day upp day upp néeg bi ñu duboo ci na ba 15000 francs ñu boole ko mooy 75000 bâtiment ba fii ñu toll ma nga fa sëñ Mourou Mamoun financé ko tubaab bi liggéeyal ko ko sëñ gaawaan dëkk ca kon eh, bokk na ci li mu liggéeyal borom gaawaan ci Daaru Salaam. mooy dëkkaloowaat gum dëkkaloowaat sëñ sëñ gaawaan ci Daaru Salaam defal ko fa nag appartement bee ma ko fa defal nga xam ne ba fii ñu toll jamono mënut a indi lu mel noonu noonu la àndeek borom gaawaan ba ni garom baa ngi wàcce ab liggéey 1940. Eh, jërëjëf Baye Fallou Galassi la kon mën nañ cee dégg ne sëñ Mouhamadou Mamoun liggéeyal na Serigne Touba Cheikhul Khadim ba làq ngërëmam liggéeyal maam Cheikh Anta ba làq ngërëmam. kon mën nañ ne euh, moom am na ñaari ngërëm yoo xam ne nii ñaari ngërëm yu jafe ci yoonu mu murit la wax nga ko itam ci jéego ak taxawaay bu nga xam ne nii amoon na ko ci waajuram ginnaaw bi mu jógee ci cheikhul xaddim kon ginnaaw bi fi maam Cheikh Anta jógee bu ñu bëgg a xam kañ la ko sëñ Modou Mamoun wuutu ak lenn ci ay liggéeyam maanaam ay réalisation ci gàttal lan nga ñuy wax foofu. waaw jërëjëf sëñ Ablaye euh, nga jàpp na rek lii lépp nag lu may tënk rek la euh, ndax ni ma ko waxee rek sëñ Modou Mamoun moom xajut ci jataay waaye maam Cheikh mi ngi génn àdduna 1940 euh, fin 40 début 41 euh, sëñ Modou Mamoun wuutu ko sëñ Modou Mamoun ak sëñ Modou Farmata ñoo ñoo seen xilaafa yi tay ak suba la sëñ Modou Farmata moo njëkk wutu sëñ Afe maam sëñ Modou Mamoun moo njëkk a wuutu euh, maam Cheikh Anta sëñ Modou Mamoun mu toogee rek doon maam Cheikh la di fas yéene nag mbooleem lu fi maam Cheikh bàyyi woon mu ràpp mu yeesalaat ko mu yeesalaat ko ci la Daaru Salaam moom nee naa la booba kër la goo xam ne dara du ko dara sikku ci def ko ni mu ko war a def rakkam alxaaji sëriñ tàkko boobu ma nga gaawaan ndax alxaaji sëriñ tàkko bul fàtte ne musta tàqali borom gaawaan moom alxaaji sëriñ tàkko bi sëñ Mudu Maamun di ne ci loxoy sëñ Tuubaa moom mi ngi loxo loxoy borom gaawaan musta taqale ko boroom gaawaan gaawaan it la féete woon ndax maam Cheikh Anta gaawaan la dëkkoon bi sëñ gaawaan di dem sigu it gaawaan la ko bàyyi mais kër sëñ gaawaan gi mu nekkoon dëkkoon fi bi sëñ gaawaan demee sigu ba ñibbi si kër googu dafa amoon coow digganteem ak tubaab yi maam El Hadj Sëñ Tàkko bàyyi gaawaan tuuti lu toll ci ab kilomètre ñëw sancaat ganeen gaawaan dend ak dend ak googa. wax na wax gaawaan taba ak gaawaan sanc El Hadj Sëñ Tàkko naka jekk foofu la nekkoon. waaye téewut sëñ Mourou Mamoun defaraat kërug tubaatul tubaatul kër maam Cheikh woon waaye biñ ko meyaasee dañ ko féetale ak sëñ Mourou Mamoun sëñ Mourou Mamoun defaraat kër googa nga xam ne daana def ñetti weer tubaatul sanc kër Kaolack sëñ Mourou Mamoun sanc kër Kaolack sanc njaareem kër fenn fu ci nekkit mag i taalibe ya fa nekkoon la doon dundal seen digganteek ak borom gaawaan ngir bañ ñu gis ñu gëj koo gis niñ tàmme woon boroom gaawaan ñu tàmme ko boo demee Njaareem kër sëñ Mourou Mamoun gaa nga fa. waa kër Baye Laay wàllonki ak ñu ci aju ñëpp nga xamante ni ñoo daan dund ak maam Cheikh foofa di gis sëñ Mourou Mamoun mu jox leen at mu jot weer yi nga xam ne wala moom la war a def Njaareem su fa jógee dem na Touba su jógee Touba Toul dem na Kaolack su jógee Kaolack ñëwaat na Daaru Salaam. nii la ko sëñ gaawaan sëñ Modou Mamoun daan baagante bàyyi rakkam yi nag ak yeneen dëkki boroom gaawaan yi waaye nag am taxawaay fas yéene nag ne man sëñ Touba daf maa digaloon ne ma du mën a ko mbàkke mu jox ma ñaar fukki dërëm ne ma na ma toggal ndab na ma dab day tax a dabe. kon ndab yooyu fas naa yéene sama baay Cheikh Sidil Mokhtar maam Cheikh moo fi njëkk jënd batab ceeb bu toll ci quarante mil ton séddale ko waa réew mi ne ñi nekk ci réewum Sénégal ay nit yi sëñ buñ xiifee maa leen war a dundal. daa di wax na kon man sama cin wërta teggeeku sama taal wërta fay waa xam nga lu mu njëkk def dafa gas ñaari teen ñaari teen teen yi boo demee 5 mètres la gudd ci biir 10 mètres sur 10 mu defaat ko fii cinq sur 10 ne ab dund doonut lu ñuy wër di wuti lu ñuy xëy di wuti te bu nekkee ci ay saako doyut camion day arrière tiim citerne bi ñuy dagg saako ceeb yi di sotti. di dagg saakoy ceeb yi di sotti ba mu ba mu fees ca kaw mu dem ne ñu def ne bee pepp mi muy dagg di sotti di sotti ba mu raay ko ci kaw bi gis nga dund boobu xam nga lu mu doon weer weer wu jot ñu def ko ko bu xëyee bàyyi fa ku ñu wax alsaan kama mu yor ay potom dëkk bépp di ñëw mu leen di nattal ay njël boo mënee yor ab dëkk da nga yor waa dëkk ba yor sa kër taxut di jàmbaar yor waa dëkk baay jàmbaar sëñ Mourou Mamoun daa yoroon waa Darou Salaam gépp nag li may wax lu nekk am na firnde mag ñi toppoon sëñ gaawaan mu ne leen la ma defaloon boroom gaawaan laa leen defal tàmbalee ko fii kër alaaji seexu Mbàkke kër alaaji seex Caam kër sëñ baay baay Mbay kër baay Alsaan Kama kër baay Yéeri Jaxate kër baay Sëriñ Jeng kër sëñ Mudu Gay Jàkka noonu ko koy toppee wuti gaawaan kër baay sëñ Njaay Akim eh, kër alaaji Sen kër baay Yuusu Baabu noonu la ko kër yooyu ma la ko timal yëpp sëñ gaawaan daa sëñ Mourou Mawane daa xëy benn bis woo ab maçon mu ñëw mu ne ko kenn ku nekk na am ñaari néeg yooyu tabax tabaxal leen ñoom ñëpp senge leen noonu la njëkk def mag ñu toppoon borom gaawaan am na kër yu bari yu ma bàyyi waaye ñii ma la tuddal ñëpp kenn ku nekk defalal nañ ko tabaxub ñaari néeg senge ko sëñ Mourou Mawane na leen yéen ak sëñ gaawaan a woon kon du ma fanaan ci néeg néeg buñ tabax ngeen di fanaan ci néegum ñax bam mu leen tabaxalee seen néeg yooyu ba noppi nag téewut leen a yoraloon seen nga sëñ Mourou ñu ngi koy woowee borom bari na kuñ tudde sëñ Modou Mamoune rek borom baas lañ lay wooye xam nga lu ko sabab moo njëkk def baas boo xam ne baasub añukaay la mas ngaa dégg loolu <laughs> baasub añukaay am setar neb ceeb uh-huh. am bopp pepp uh-huh. waaye sëñ war ngaa man a am añukaay ab baas la jëndoon baas yi ñuy baase eh, xew yi benn la ci jëndoon def ko Daaru Salaam ne leen mag ñii fi nekk nga xam dañoo liggéeyal sëñ Tuubaa ba jeex du ma leen tiimaleew sàkkit du ma leen tiimaleew seng ay baas lañ fa defoon lal ko bu añ jotee fu de nga daan seen mag ñu nga fa yoru parisol bu ñëwee ñoom ñëpp ñu taajal leen ay booli ci ndabul sëñ Mudu Maamoon na kenn du ko tibbaati booli bi ni mu feese noonu noonu la koy taajale nga lekk ba jóg ñëw fab yóbbu keneen waaye tibbaati sëñ Mudu Maamoon nee na kenn du ko def loolu tibbaati doyut su ñuy dem kenn ku nekk muut lu la jox dem na Makka it ànd ak sëñ Fallou it ci liggéeyub jumaa ji 1958 bi réew mi baree coow tubaab yi ne fi Senghor ñoo war a commencé def politique kilifay diine yi dañoo daje ne nañ waxtaan ndax tubaab yii songu si nañ ñu te bu ñu songu see buñ moytu ndiku wut lii ñuy wut buñ ko amee danañ ñu tënk ci luwaa boo xam ne danañ suñ diine dana ko dana ko bañ nañ teel a xeex ak ñoom. sëñ bi ñooñu matoon nañu ay kilifa de. bañ demee ba waxtaan ci. Uh-huh. sëñ Cheikh Gaynde Fatma. Uh-huh. moo doon dox loolu. ànd ko ak yeneen kilifa. waaye dañ ne kilifa réew mii day génn kër lañ xam ne buñ fa dajee ñoom ñëpp ko boo leen fa mën nañ leen faa fekk ndax amut kenn xaar ma yàlla. ñu ne ko mu ñu ne Daaru Salaam kër sëñ Mourou Mamoun. keroo mbooleem Seydou Nour Tall sëñ Abdou Aziz Sy. kër Baye Niass ñëpp Daaru Salaam lañ daje si sëñ Modou Mamoun na njëkk am daje bu toll noonu ci àdduna 1958 këri diine yëpp daje Daaru Salaam mu teral leen ñu waxtaan fa waxtaane fa seenu bokk loolu yaakaar naa ba tey jamono soxlawaat na ko de war naa dellusiwaat ndax attaques yi ñuy attaque bari na ñëpp di song tasawuf te ñi ñuy song ñëpp ñoo bokk ndey ak baay loola mag ñi boobu lañ leen defoon sëñ Modou na ko njëkk a def euh, liggéeyub jumaa ji da nga ciy dégg wax ju ne. gis nga yaa ngi dégg sax bañ na sëñ Mourou Mamoun moo njëkk a dajale almet eh, million ak almet njox sëñ Fallou gis nga jumaa ji jumaa ji xam nga fan moo ci cirub Daaru Salaam fu ci daar cirub Daaru xam nga mooy barabu sëñ Tuubaa bi. parce que biñ ko liggéeyee biñ noppee eh, bi barab bi taxawee nii weñ yi ko wër a wër sëñ Mourou Mamoun ko waroon a liggéey. sëñ Fall daf ko ne ginnaaw maag yow a àndoon liggéey jumaa ji ba noppi na lii moom dama la koy lebal bu jamono neexee nga fay ma sëñ Modou Mamoun sëñ Fall sëñ Modou Mamoun laaj sëñ Fall mu na ko téeméeri junneeg juróom-ñaar fu ko liggéey moo ko liggéey sëñ Modou Mamoun dem dajale million boole ceeg almet yit sëñ Fall na ko man du ma taalibe buy joxe xaalis di laaj sëriñ ba foo koy def yaa xam foo koy def waaye bu la neexee nga taal ko ci la ko sëñ Fall sase tapis jumaa ji moo defar barab boobu moo jënd tapis jumaa ji ñu lal ko noonu la ànd ak Cheikh Mamadou Fadal ba am nga ngërëmam kon mën naa ne dajale million teg ko ci loxol ko fi nekkal sëñ Tuubaa boole ceeg almet sëñ Mudu Maamun ne ko njëkk def ci àdduna ca jamono jooje tappi jumaa ji it moo ko njëkk a jënd jox ko sëñ Fallou ànd ak sëñ Fallou liggéey jumaa jëpp ba ci le 26 septembre 1969 ci la ko suñ borom moom mu dem àjjana e, wuutu maam Cheikh Anta ànd ak sëñ Tuubaa ca ca gànnaar. ànd moom it ca ca yéen jolof ànd moom ci njaarim ab taawam bi ko jëkka wutu di Cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké yàlla na sunu borom doole ngërëmul yàllaam eh, doonoon jàmbaar ka topp ci ab taawam wuutu ko moo di Serigne Amidoune Mbacké moom it doon doonoon nitu yàlla ko mag ka topp ci Serigne Amidoune moo di Serigne As Guédé di ñetteelu xalifa Serigne Moudou Mamoun. moom it ñu tuddee woon ko sëñ bu so mu doon ku ku bëgg mbokk doonoon ku woyof ka ca topp moo di sëriñ Jili Abdou Khadir boroom xol bu rafet ba maanaam sëñ Abdou Khadir la ko sëñ Moudou Mamoun duppee muy ñeenteelu xalifa sëriñ Moudou Mamoun fii ñu toll sëriñ Moudou Mamoun sëriñ Jili Mbàkke sëriñ sëriñ Abo moo fi des de ab xalifaam des fi te doomi sëñ Moudou Mamoun ñuy sàkk jullit yëpp ñu ñaanalal ñu ko. sun borom yàggal ko fi te dolli ak wéram ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko di jaare bu baax soxna yàkkale mi nga xam ne eh, moo fi des ci doomi sëñ Mudu Maamun yi jigéen siyaare nag sëriñ Cheikh Madina yaayam mooy taawub sëriñ Mbàkke eh, sëñ Mudu Maamun soxna Aminta Mbàkke mi ngi gane àdduna 1914 ca Jurbel sëñ Cheikh Bombali yaayam mooy taawub sëñ Mudu Maamun kon mën naa jàpp sax ne moo mag fi ne ci sëti maam Cheikh Anta yi ñu ngi koy jar bu baax a baax Eh, di siyaare njabootuk soxna satu Mbàkke bintu Cheikh Mamadul Mamoun ca Ndakaaru di siyaare ñëpp sëñ Ablaye jërëjëf Baye Fallou jërëjëf macha allah kon mel na ni eh, sëñ Modou Mamoun ci eh, point bi nga mujj a développé rek mën nañ cee génne ay jàngat yu tuuti rek mën nañu wax ne ku yaataloon liggéeyub maam Cheikh Anta Ba la waaye ku sàmba nonole la nonoloon nag càmm gi feeñ na ci ay anam yu wute ak yu yaatu sax bokk na ci teraanga ji nga xam ne nii doon na ko teral magi Serigne Touba ak teraanga ji nga xam ne ni doon na ko teral itam képp koo xam ne nii woon nga ak maam Cheikh Anta teraanga jooju itam wax nga ko léegi feeñ na ci mbooleem këri diine yi rawatina ci réew mi kon buñ ko toppee dana yaatu wax nga itam ci addiyey Daaru Salaam ji xam naa foofu euh, laataa laaj bi ñëw nga ba tontu ko addiye ji bu yàggul rek jóge nañ ci wax nga diggante euh, sëñ Modou Mamoud ak sëñ fàllu ba mu koy jox million jamono yooyu nga xam ne ni million taburanke woon na lool kon loolu bu ñu waxee ne ren ji euh, Daaru Salaam joxe nañ li ma million bu takku kon mën nañ ne nekkul loo xam ne ni hasard la bay fallu waaw jërëjëf foofu it li ma ciy leeral gis nga bi sëñ Mourou Mamoun joxe million am boobu kon moo njëkk def loolu ci yoonu murit bi ñu demee ba 1983 sëñ Mourou Roqe dafa am benn bis mu xëy ne ñun de saa yi noppee liggéeyal sëñ Tuubaa ñoo mbaam yi ci mbedd mi ñoo yem te murit wërta toog rek buñ ko joxul ndigal mooy xoole soo jotu ndigal da war a dem jëli ndigal damaa bëgg nag at mu jotati at mu jotati ñu daje Daaru Salaam ci weeru janvier dajale liñ am yit ku nekk ku fi nekkal sëñ Tuubaa ca bum jënnati loolu moom sëñ Mudu Roxaya yaa ko njëkk a def woote ko ci le 15 janvier 1983 ba mu noppee daf ma woo ma ñëw mun ne ma taarixal ma lii ma lay bëgg a wax ma wax na la quinze ci at mu ne ñu yóbbu addiye ci weeru janvier tofal ca sart ya lii la waxoon mu murit ye woon fa daaru kee doon seex ma doon woon muxtaaru te teewutoon mu yóbbu ay hadiyaam ngir lim nangul seex abdu may wasilaam boobu seex abdu laata tax may wax ku sa bàyyi gor ab tool walaay jikko ak bay ko war ngaa am jomi def ko kon ginnaaw sëñ mudu maa mën a dajale ci jamono jooja million teg ci almet yokk ko sëñ bu ñu demee ba 1983 doomi sëñ Tuubaa yi ne fi Cheikh Abdoul Ahad ne fi xaw a doomi ñeneen ñi fi des sëñ mu roqee joxoñ na leen neen du moroom ñun liñ war mooy at mu jot ñu yox ko addiya ci la see salawaat addiya ji ba tey jii sëriñ Abo Mouhamed teg tànkam ci nag ne li ma fekkoon sama baay def ko samay mag ñëw wuutuma ci yeesalaat ko ba agsi fii fas naa yéene du ràppe ci man ci la dajalee nag trois cent dix million teg ko ci loxo sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a doole gërëm ànd ak jëwriñam di sëriñ Cheikh Anta mu ànd ak moom itam si ay jëwriñam di sëriñ Sidi mu sëriñ Amidou ak sëriñ Sam ak seen rek rakk yëpp yal na leen fi yàlla boole sàmm yàgg leen fi ñu ngi lay sant sëñ Ablaye di sant sunu caméraman yi ñoom ñëpp di leen ñaanal sunu borom defal leen tawfeex wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Baye Fallou Gallass Syll la euh, jërëjëf ñi nga xam ne itam ñeen doon bàyyi xel euh, télévision Lamfal TV ci fàttali rek ni ko waxee ci njàlbeen gi émission bi tey ji euh, moom lañ loon waaye ab émission am la muy ëttub murit tey nag ñu doon waxtaanee jàmbaar góor yàlla sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbacke ibn maam Cheikh Anta Mbacke yaakaar naa li ci sëñ Fallou Galas wax doy na sëkk buñ ko toppan mën naa doon ay jataay jataay kon yàlla nañu suñ borom taas ci barkeem yokk ay leeram foofee mu nekk ci barkeb waajuram wa ci barkeb seen sëriñ ba sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di leen jox euh, dox daje beneen jataay ci ëttum murit ci Lamfal TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفيني الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفيني الدار يا الله سفيك بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا ملاك